Papa maa ngi lay euh, maa ngi lay fay sama doom. présenté wu merci merci. Adama Sadio délégué de quartier de Mermoz Pyrotechnie. waajur euh, man maako ko jur c'est mon fils. li nga xamante ne nii moo am ñu la ci mastaw d'abord euh, naka nga yëgee xibaar bi. bon xibaar bi man j'ai été réveillé ce matin en sursaut parce que. dafa am koo xam ni dafa daf ko xam dans le domaine du football moo ko gis fii seen histoire bi amee je ne sais même pas comment ça s'est passé mu daw si aviser ñu et en plein sommeil madame et les enfants ñëw daanu sama kaw di yuuxu man leen meeg il faisait ay booru six heures du matin man leen lu xew ñu ne ma papa il paraît qu'on a tué Cheikh Tidiane man leen lan ma ne waa ji est-ce que mën nga ñu conduire ci lieu bi ñi dem fekk ko foofu et j'appelle tout de suite le commandant de brigade de la gendarmerie de Wakam ñoom ñoo ñëw bi ñuy ñëw nag ils nous ont demandé de leur laisser faire leur travail waaw man depuis loolu nag je sais que depuis six heures du matin ba tey jii maa ngi ci formalité administrative yi waaw j'ai eu à leur poser la question ci mun a xam déroulement affaire bi ñu ne ma pour le moment vous êtes sous le choc bàyyi ñu eggal suñu liggéey on vous dira tout loolu rek laa ci am. waaw waaye bi laa jëli woon euh, parce que ils étaient obligés de faire une autopsie à la morgue de Dantec fa laa jëli ji corps gi sànq. Euh, le corps est en ce moment à la mosquée de Mermoz. Waouh. Demain à partir de 11h, levée de corps à la mosquée de Mermoz. Autopsie bi bon foofu daal mort par strangulation avec euh, des lésions sur le corps. Pour le moment loolu lañ xam. La famille est en état de choc. Elle est très traumatisée actuellement. C'est pourquoi nous vous prions vraiment d'arrêter la, l'interview pour laisser le père aller se reposer parce que depuis ce matin, il est dans des formalités de, euh, de administratives. Vraiment, nous vous excusons. Est-ce que vous pouvez faire un petit témoignage sur votre fils Oui, mais c'est un garçon que j'aimais beaucoup. C'est un garçon que j'aimais beaucoup, un excellent footballeur qui m'a côté parce que c'est son ami. Baye moor mun na ko témoigner waaw vraiment il était aimé de tous les enfants moo leen doon entraîné fii sànq euh, buñ ko buñ ko jëlee morgue ba xale yëpp nga fa di jooy waaw c'est un garçon vraiment sensationnel vraiment waaw sensationnel euh, Adama Gaye ñu gën ma xam turu Petit Gaye mën nga revenir ñu si li nga xamante ne ni moo fi xew euh, ka nga xamante ne ni dañ koo faat euh, ku ñu faat naka la tudd. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane ko faat na la. pare que dara cité mooy surnom am waaw. naka la mbir yi fekkee ma ko on juste nag ma dañ ma woo téléphone après ci laa ñëw bi Cheikh tëdd après bi ñu ma expliqué oto bi nu mu mel ak yooyu mooy leen gis naa leen ci guddi gi ñoom ñaar après ñoom ma foto oto bi oto bi oto bu mu yoroon waaw fi fi ko reyee quoi d'après li gars yi expliqué. après ci laa def sama investigation vite fait ñoo xam fu mu nekk après gendarme yi dem fa noonu lañ ko jàppee. bi yan heure la am. boofu man ñu ngi ma woowoon ay 7 heures 30 lañ ma woo après ci laa jug sangu dem ci scène de crime bi noonu laa ci am. Ah, dañu ko faat ba pare sànni ko fu soriwul dara seen kër yan leeral nga ñu si mën a wax. waaw soriwul ah ci koñ bi la lépp ci koñ bi la en face juste ONG 3D koñ bi mu jàkkaarloo. lu métti la aussi ah parce que ñoom ñëpp ci koñ bi lañ dëkk Cheikh fii la dëkk suñu raq la booy bu bëggoon football boo xoolee sax statut témoignage sax loolu gars yi dugal ay équipement et tout seytaane moo dugg seen diggante rek ëpp leen doole waaw football la woon la waaw yàgg na ci waaw. waaw waaw mbir moos ko ñu ko ci bu baax. kon bébé tam ci football. vraiment tekki comme ñëpp ah nekk professionnel dimbali ay waajuram et tu mi ngi noonu daal man affaire dafa ma bett ko xanaa lanam la ak lan moo tax mu faat ko ngeen dañoo jote. wala nag est-ce que pare waaw maa waaw ay xarit la mais kay moo ko mag fuuf ah waaw mu ne lan lañ jotee da ngeen xëy rek gis ne. fan di waajal sangu ñu woo ma téléphone doon laaj toll. boobu fekk nañ ko mu tëdd ah ñu muur ko fii am nay cicatrice je sais pas nag xaw ma nee nañ da koo da koo xoj da ko mu sedd ci oto bi d'après li gardien expliqué mu mu buuxu ci oto bi mu génn après ci la dem yoonam waaw mu yóbbaale otom moom oto bi waaw dadaa. bu nga yëgee eh, information bi ban réaction nga si njëkk am sa réaction bu njëkk. boobu gëmuma ko il a fallu que ma déplacé wu dafa ñëw bi mu ñëwee tiim ko ci laay soog a xam ne que Cheikh la quoi. parce que ci guddi gi rek gis naa leen ñoom ñaar ay vers minuit une heure yooyu noonu avant may tëddi gis naa leen ñoom ñaar ñu nekk di waxtaan plané taa seen oto génn oto après ñu ma woowee expliqué man teg nañ ko loxo mais mel na ni yow yaa ko njëkk jàpp naka nga def ba jàpp ko te ne woo policier woo takk der euh, si anam bu gaaw boobu. non njëkkuma ko sax dafa am ñu ma woo rek laaj leen et tout affaire yooyu noonu ñooñu localiser ko wax ma fu mu nekk après ci laa wax gendarme yi ne leen ngi bërëb sàngam gars dem teg ko loxo. waaw moom la demee waaw. waaw mi ngi mi ngi gendarmerie. pour terminer appel ngay lancé si li nga xamante ne ni moo na booy mel moo si dal rek xam ne àdduna bi moom ñoo ñëpp ay xale lañ quoi ku ci nekk am nga avenir xam nga moytu yenn fréquentation yeeg yenn àndandoo yi éviter du bari surtout meuse moom tentation yi dafa gaaw dafa graaw ci ba pare laa ko mën expliquer booy bëgg nañ jotaayu mbedd bëgg nañ jaay affaire de. bandit loolu amul sens quoi ñi ñuy weesu nañ loolu waaye ku ci nekk yaa ngi xoolee ku ci nekk yaa ngi xool na ngay ñafee sa life defar sa avenir man Moussa bu moom mooy nag loolu laay lancé quoi na booy defaraat seen toogaay xoolaat seen bopp te xam ne àdduna bi du benn fan du ñaari fan waaw te éviter bari quoi. Cheikh seen laa tudd gis euh, li nga xamante ne moo fi am di ab footballeur buñu ñu faat euh, di euh, Sadio donc il paraît que yow yaa njëkk a gis li nga xamante ne nii moo di corps gi naka la demee ban heure nga ko gis yan circonstances nga ko gisee. waaw je fais partie de ceux qui ont vu en premier lieu le corps parce que je me suis en fait j'ai été réveillé par des cris dama dama dama dañu yeewu avec un réveil brutal. ay yuuxu parce que c'est un voisin benn kër moo dox suñu diggante waaye donc comme je moi je suis très matinal j'étais en train après la prière de prendre mon café j'ai entendu des cris quand je suis sorti ci laa yem ci papa ji mu xamal ma ni que vigile bi dafa ñëw ne ko Cheikh la ñu la ñu la ñu la ñu boom Cheikh moo décédé comme il comme moi boobu fekkul mu leer moo ngi lëndëm mu ne ma gunge ma donc euh, ba ñu yeggee ñoo ngi fekk euh, Cheikh Sadio tëdd. de, de il était déjà mort il faisait six heures du matin moment boobu mu nekk nag euh, lu métti ci ñun lool lool lool ndax mu doon lu ñu bett aussi parce que koo xam euh, di yendoog moom presque chaque jour di ko gis mu nekk aussi un jeune très serviable waaye amoon njëriñ aussi ci jeunesse bi ba pare aussi il était souvent dans le mouvement associatif déjà ASC bi que, les, que ce soit les deux ASC, ici à la Cité Comico comme l'ASC de Mermoz aussi. Il a eu à jouer dans ces deux associations. Donc très actif dans le mouvement associatif. Très serviable aussi. Comme nous beaucoup dans des circonstances assez atroces de Donc nous ci yeme ouais. Donc nous aussi. Fort heureusement qu'il euh, y avait deux gardiens qui, qui étaient là-bas et qui ont vu, ñoom gis nañu la scène comment elle s'est déroulée quand ils nous ont expliqué que ni fort heureusement pour eux que jotoon nañu filme photo oto bi jël plaque d'immatriculation bi hmm? bon ils disent que ils ont voulu intervenir waaw dañ doon xeex loolu lañu wax loolu la bon xaw ma ko parce que peut-être comme actuellement affaire bi moo ngi ci enquête aussi peut-être on va laisser l'enquête se dérouler mais comme ils ont eu à photographier le véhicule aussi ba pare ñu ñu comment ça s'appelle ñu jël euh, plaque d'immatriculation bi et que aussi comme waa ji ko le le supposé meurtrier aussi il habite le quartier donc euh, personnellement nous étant jeunes avec lui là on a eu à faire un recoupement parce que c'est ce qui a facilité un les chos choses au niveau de la gendarmerie. Nous savons qu'ils doon fréquenté. Vous voyez. Donc rapidement, on a pu savoir euh, le présumé meurtrier. Hmm? xaritam la il se fréquentait. Il y a effectivement. donc ci circonstance boobu noonu ñu lañ ci yemee ce matin voilà mu nekkoon nag lu métti lool lool lool ci ñun parce que des fois nit dina dee certes dee yëpp day métti waaye bu nekkee sa proche surtout aussi ak ni muy nekkee sa proche jeune boo xam ne il était vraiment serviable donc ça n'a pas été très facile pour nous vraiment c'est on a eu à vivre un événement dérou très douloureux aujourd'hui voilà am appel ngay lancé ci li nga xamante ne ni noonu la mbir yi demee euh, xaritam xoj na ko ba mu ñàkk kanam euh, di mbir mu métti lool te c'est pas la première fois ñuy gis rey gi bëri lool ci réew mi ban appel nga siy lancé bon juste plus de tolérance au niveau de la jeunesse faut qu'on soit tolérant. Ouais, a trop de, de violence actuellement. La violence, elle est souvent physique, mais aussi elle verbale aussi. waaye parce que souvent, ay nit dañuy ànd lii waral des fois ngay dégg nit ànd naag moroom rey ko des fois ci ay détails yu ndaw lay nekk. waaye donc le sens de la tolérance bu ñu koy am aussi di mun di jéggalante xam li ñu boole ni que moo ëpp li ñu war a différer. donc côté boobu bu ñu ko xoolee parce que souvent aussi les gens muy les nous jeunes ni ñuy xamante ne aussi des fois yi am ci suñu ay waajur sax mooy gën a diis que ñun sax li ñu seex donc dans ce sens il faut que ñun jeune aussi ñu xam li ñu boole jéem a moytu lu bare bare bare bare bare bare bare voilà appel boobu laa doon def